أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همشات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانشر علي البركات دون الدر والاستواء يكف كل ما يدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare di eh, nuyoo ko siyaar ëtt bi ñu toog boroom ëtt bi muy Serigne Moustapha Ndiaye di kenn eh, ci njaboot ak Serigne Darou ngir ab sët la ci sët yi nga xam ne ñooy sëti Serigne Darou Assane yi Euh, tey nag euh, ñu teew ci jataay bii ay bokkam yépp euh, fekk ko fi ay taalibeem fekk ko fi ay wëlëreem fekk ko fi ngir ñu fàttaliku jëmm joo xam ne kenn la woon ci uur bu njëkk ba nga xam ne ñoom ñoo toppoon Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bokk ci ña nga xam ne lañu la yonent ba aman ci ay saxaaba lañu doonan ci moom moom mii loolee la doonan ci Serigne Touba moom Serigne daaru mu mel nii ànd ba dafa yàgg lool ngir li ñu nettali mooy xam ngeen ne bi Serigne Mor Anta Sali nekkee di jàngale sëriñ daaru mii bokk na ci ñi nga xamee nekk nañ ca daara jooje nekk fa ak sëriñ bi ci wàllu xam-xam di ko fa sàkku sàkku googee mu doon sàkku xam-xam it eh, ca la nekk ba géeju ca lool ginnaaw bi nga xamee ne nag sëriñ Mor Anta Sali eh, bàyyi na fi wuy ji boroomam te sëriñ bi dese daara ja ba sax ci jamonoy Serigne moor Anta Sali wax nañ ne sëriñ bi ci boppam woo na leen ñoom ñi nga xam ne booba boroomi xam-xam lañu eh, te féete ak mag tuuti ci yenn dongo yi. xamal leen na leen kat sëriñ Mor kat dafa mel ni jotam mayetu ko ñenn ci dongo yi mu mën leen a jàngalati nam ware kon dama bëggan ku ci nekk ci nun fànn ga nga xam ne moom la gën a euh, màcc ci moom gën koo man loole mu jël ko su ko defee mu koy jàngal dongo yi wax nañ ne sëñ daarum yi bokk na ci ñi nga xam ne am na lu mu jëlan daan ko jàngal dongo yi ca jamono joojee booba sëriñ Mor a ngi fi mu ànd ak sëriñ ba ca loola bi fi sëriñ bi jóge itam sëriñ bi dese daara ja ay at ba nga xam ne la ca xew xew na ca ba sëriñ bi wax ne yonent bi sallallahu alayhi day moo ko feeñu bim ko feeñoo itam lam ko wax mooy rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si faqat yaral sa taalibe yi ngay àndal ci yim imma kawe te mooy yitte joo xam ne yitte ju kawe kawe la yitte ju kawe nag euh, euh, sëñ Sàmbay radiallahu anhu wax na ne mooy nit ki fexe ba yàlla suy bind ca lawxul mahfuz ki ki ja xalima jay wax nga dégg ko mu wax ne loola mooy yitte ju kawe ji nga xam ne moom la yonent bi joxoñoon sëriñ bi ne ko yar ci sa euh, taalibe yi loola nag ba amee sëriñ bi dafa dajale mbooleem ña neen ca daara ja booba xamal leen ne kët am na lu xew te mooy képp koo xam ne njàngam kese rek moo la fi indi woon man ngaa laxas nag seeti foo ko defee waaye nag koo xam ne li ma bëgg rek moom nga bëgg man ngaa ànd ak man ca loola ñu ànd dem ca loolu yi nag ba ko waxee ca ajjuma joojee nga xam ne moom la ko waxee wax nañ ne fekkutan ca jataay boobee mu ko doon waxee sëriñ daaru ndax moom ak sëñ daam Abdourahman Lo dañoo wuute woon jataay boobee waaye bi nga xamee ni ñëw nañu ñu wax leen kat li xew ginnaaw bi nga xamee ne ñoom deman nañu sëriñ ndaam dafa daal di jébbalu doon juróomeeli taalibe sëñ daaru topp ca doon juróom-benneeli ci sëriñ Tuubaa a anhu kon kooka ci uur bu njëkk ba la kooka ca tànneefi la bokkan ca njalbee nag yoon wi mu ne dann sëriñ bi nag geestuwut dara bëggul dara loole it sëriñ bi ci boppam wax nañ ne seedeel na ko ay seede yu rëy am na ci yooyu sax bind na ko muy jasaaka ja euh, benn ba wax na ko muy kàddu yoo xam ne ñu bari dégg nañ ko miin nañ ko itam ci yoon wi sëriñ bi wax ne képp koo xam ne defar naa ko dey ndab la ma indil dama ko raxas ba mu set ma defal ko ca la ma koy defal waaye daaru asan day ndabam moom dama ko caa dolli rek waaye fekkuma ca lenn lu tax kon loola day firndeel ne sëriñ daaru jëmm la woon joo xam ne ku sàmm wante ak boromam la waaye ku sàmm wante woon digganteem ak sëriñ bi la waaye ku sàmm wante ak ay bokkam la sëriñ daaru itam bi mu laxasaayoo noonu ba jébbalu ci sëriñ bi li ñuy tudde xidma te mooy liggéey da ca jóg nag taxaw ca temm liggéeyal sëriñ bi ci zahir liggéeyal sëriñ bi itam ci baatin liggéeyab zahir bi mën nañ cee nettali rek loo xam ne sëñ Moustapha Lo moom moo ko nettali moom sëñ Dame Abdourahmane Lo wax ne waajuram wax na ko ne ko am na at moo xam ne fii armel yi yi nekk tey muy armel yii ci jumaa ji sëriñ bi béyal nañ ko fi toolub dugub wax nañ ne teelub dugub boobee sëñ daaru bokkan na ci dongo yi nga xam ne ñoo ko doon béy Euh, sëñ daam nee na saa yu ñu béyaan ba wàcc jot suñu wàccee ba ñibbi ca kër ga su guddi jotee sëriñ daaru day jëlaat ab deram ñëwaat ca tool ba moom fas yéene fa fanaan jaamu yàlla subhaanahu wa su asamaan seetee mu bokkaat ak ñoom liggéey ba kon loola euh, taxawaay bu rëy la taxawaay boo xam ne euh, nitu kese kese rek mënul loola ginnaaw bi nga xamee ni itam sëriñ bi wàcce na ko ba mu delluwaat ca fa nga xam ne moo di cosaanam la mu def mooy laxasaayuwaat liggéey ndax ba mu demee ba gis ne kat fii nga xam ne moom fi la nekk mënatu fee nekk ndax suuf si xat na ci moom dafa génn ngir wuti suuf soo xam ne moom la mën a béyee loola it euh, ba mu génnee ba dem dañoo gis ne la mu def mooy la yoonu réew mi wax mu jaar ca loola ndax booba jaraaf la xam ci nekkat mooy yilif suuf ci jamono joojee ba mu demee it ba àgg fa mu àgg ca Dakar googe nga xam ne wax nañ ne fa la dem wàcc fa fàkk fa fu mu toog ba mu fa toogee ab diir dafa laaj kan moom suuf si ñu wax ko jaraaf ji ko moom ba mu xëyee la dem yeble ca moom ba mu demee àgg ca moom wax ko la nga xam ne moo ko yëkkati woon te moo di ab béyu rekk la bëgg ak fu mu sàmmee ak njabootam ak fu mu yare ay taalibeem wax nañ ne jaraaf joojee ba mu xëyee ba mu ñëwee ànd ak dag ya moom ci boppam moo wut benn ab dagam jox ko juróom-ñaari xatar muy doom yu ndaw yooyu di nuroo ak xaal bi mu ko jëlee daf ko wax ne ko taxawal ci wet yu nekk xatar bi nga sànni ko juróom-ñaari yoon soo sànnee benn yoon fa mu dal na nga dem ba àgg foofa jëlaat xatar ba sànniwaat ko ba mu mat juróom-ñaari yoon ci ñeenti wàll yépp loola ba mu ko defee loolee la euh, jaraaf ja daggal sëriñ daaru mu sanc fa ab dëkk def fa ay tool ngir liggéeyal euh, sëriñ bi radiallahu anhu noonu it la euh, saxoo wan liggéey boobu mbokk ci nag liggéey bi nga xam ne liggéey baatin la xam nga ne yoonu géej gi nga xam ne sëriñ bi lépp lu mu am ci yoonu géej gi la ko amee wax nañ ne bi mu koy waaj woolu na sëriñ daaru xamal ko ne ko kat damay am yoon wu may waaj woo xam ne dama bëggan nga dugal ma ci xalwatu sëriñ daaru dugg xalwatu ca yoon woowee te ku ne xam na dayub sëriñ beeg ni mu toll mënoon na ko defal boppam waaye doy gu ko sëriñ daaru doy loola taax ba mu ne ko dugal ma xalwatu euh, ca loolee sëriñ daaru defal ko ko bokk na ci santaane yi nga xam ne itam sëriñ bi santan na ko wax nañ ne sëriñ bi santan na ko muy jàng junniy euh, euh, ayatul kursi yu guddi gu nekk junniy ayatul kursi yu guddi gu nekk bokk na ci santaane yi nga xam ne wax nañ ne sëriñ bi santan na ko santan na ko itam muy naafila kaamil bi téeméeri rakkaa yoo xam ne toujours day def loole loole nag itam euh, dinu wan rek dayo boo xam ne aman na ko ci digganteem ak sëriñ bi waaye dayo boo xam ne aman na ko digganteem ak boromam subhanahu wa taala la ko yàlla sant lépp mu def ko ba wëlbatiku naafila naafila yoo xam ne kenn mësta gis lu toll noona ci ay naafila te loolu lépp taxu saa yu asamaan sete la ko war digganteem ak nit ñi ci jàngal leen la ko war digganteem ak nit ñi ci jubbanti leen la ko war digganteem ak ay bokkam ci defal leen ak dem ci ñoom loola mu koy def nam ko war a defee loola it taxan na ba yàlla may ko nag lu baree baree bari ci ay mbóot ak ay mbir yoo xam ne euh, néew na euh, ku ko yàlla jagaleel ndax kat soo demee ci alxuraan da gis ne xëy na ñu néew ngay gis ne ñoom ñoo wax ak ay njanaaw wala ñoo wax ak leneen lu dul ay nit te sëñ Daaru kat bokk na ci ñi nga xam ne wax nañ ne euh, euh, sëriñ bi da koo xamal ne ko saa yoo demee ba dégg kàddu njanaaw yi xamal ne kat léegi euh, yaa ngi waaj war a wuji sa borom loole nag wax nañ ne benn bis toog na ci garab di bind alquran nee na bu mu ab di seen ñaari pitax yu tong ci béréb di waxtaan mel pitax mi naa ko fu nuy fanaani mu ne ko xanaa ca garab gee sëriñ daaru di jàngalee alxuraan loolee nag ba mu ko déggee la xam ne kat kon la ko sëriñ ba doon wax mooy euh, jub si sëriñ daaru daal kenn la woon ci biir njaboot ak sëriñ Touba gi koo xam ne benn taalibe xeebu ko ca doxin wa sëriñ ba nawan ko loolu itam ci melokaan woowu nga xam ne moom la melowoon ndax la mu aman lépp cib dayo ak xiima ak na koy bokkam toppee nag lépp ak mbooloo ma ko toppan teewut ak taalibe rekk la jàppan ne mooy lépp ndax kat euh, bi nga xamee ne sëriñ bi euh, yónni na Cheikh Mouhamadul Moustapha ci weti njàmbur ñu baree bari lañu doon séentu ci ne sëriñ daaru su fa àggee nan lay def ak moom ngir kat sariya ju rëy jamu amee woon waaye sariya jooju jëpp aqiqa la ko nëbbe woon jël ko ànd ak moom di ca dox doxin wu réeré wax nañ ne keroog bi nga xamee ne sëriñ daaru agsi na sëñ Mourou Moustapha agsi na ci moom la mu def mooy néega boppam ba nga xam ne ca lay tëdd moom la baddi perma génneelu lal ba ñu yeew fa fas wa ci boppam fas bi Cheikh Mouhamadou Moustapha waran waaye néeg ba nga xam ne fa la doon jàngale alxuraan mu wax sëñ Mourou Moustapha mu dal foofa moom kon ak taalibe la doon jàngale ak taalibe la doon wone léppam daal sharia la léppam lislaam la léppam xadimal Moustapha la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.